sunu kilifa diine yi xarit yi ak wóllare yi dëkkandoo yépp bokki Mbuur ak bokki Sénégal bokki bitim réew bokki àdduna bépp ñoo ngi leen di nuyu ci kàddu xarit yi ñëpp wóllare ñëpp muy njaay xasaayit mu mel ni dañoo yónni ci bokk yi fi daje yëpp waaye yónnent baa ngi tàmbalee ci suñuy kilifa li soob yàlla mu nekk ci bokk yoonu murit ñu Seex Sidi El Muxtaar ak wasilaam li nga xam ne moom la ko suñu borom booleel wala moom la ko Sëriñ Tuubaa booleel muy Sëriñ Mouhamadul Mahfous ak njabootu waa Daaru gépp di ko tàmbalee ci sëriñ Cheikh mi nga xam ne moo fi wutu moom jàll mu mel ni gis tey bii day gis boo xam ne da ko ñàkk mus ta ñàkk di ko yitteel ñuy bis bu ko ñor ñu gis bu mag ci moom waaye mu mel ni saa bu bi dikkee rek mu doxe moo xam ne nee na cant boppam doyu ko ci ba tax nga dañoo yëngu ci mbooloo li may wax lu ko lor la lu ko yitteel waaye na ci am tiitaange lool ci pas-pas bi mu ko waxee ak ni mu doon di ci xolam te muy kàddu yu jot yu matale jaarale ko ci ñoo xam ni wala koo xam ni am xelam matewul noona te mu gaaw a fàtte waaye ginnaaw bi ñu sante ki nga xam ni. soob na yàlla lu baax ci kaw ak suuf moomo muy xadimal Moustapha cant bu wér boo xam ne ñu ngi koy seereel bokki jullit yëpp di ko seereel bokki talibi di ko seereel na xasida yi nga xam ne sëñ bi nee na woon maay ñoom ñooy man nee na bu ko seereelee ñooñu ba noppi itam ñu ngi koy seereel sëriñ Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne moom la ko sëriñ booleel te muy ko mat ko kon nee na itam ñu gërëm sëñ Modou Moussa Moussa Mouhamadou Moussa Mahfous ngërëm loo xam ni lu landi loo xam ni am na ab tàmbalikaay li wala fi wax waaye ab yem wooy amul nus bi nus bi nawee nit ku baax nus bi nawee nit rek tegtalu ak di tegtale loolu lépp nee na gis na ko ci jamono ñu koy gërëm ci biir ñu koy gërëm ci bitti bis bii waxoon na ko bisu boppam waaye defe naa murid bu ne war ngaa mën a dund ci sëriñ boo mën a topp bu nekk lam daan man ca la ko weesu mënatu ko ci jamono yu ñu toll ndax wax bu nekk ak xat di yi di gën di bari njaboot di gën bari la ñuy lijjanti loo xam ne at noo weesu la nga at noo suuf bi ñu yoon kooku nag dana toll jamono yoo xam ne ak jàpp ne dana am ci loo nekk mu nekk daal yu ci wàllu sori boo gee sa gis waaye a day am nag yoo xamante ni doy na moo fay nekk ak njabootam waaye boobu la ko mu nekk kon loolu moo dox ci digganteem ak sëriñ bi ñu ngi sant taalibe yëpp ñu ngi leen di gërëm mu wax it nag ni bis bi dafa mel ni sooboon na yàlla mu mel ni da koo tàmbalee sunu sëriñ bi koy def da koo tàmbalee ci moom yëpp na ni dafa mel ni jàng ko ci fas yi taxoon. sëriñ bi sàkk bis boobu mu wax nañ ni naa leeral mbooloo mi ak jàngkatu xaside yi ni bis bii ni mu ni mu war a mel mel na ni te mi ngi seere ci sëñ Tuubaa ni dara doon di def kaw looloo naag looloo naag boo wootee mbooloo wala ñu dajale dara mu sosoo ci yow nit ñi ku dum mel ne yow lay wuusi te teewul ko jàpp ni yow ni wuusi yaa moom a ko faaw bu leen rekk nga yem ci képp faaw nga am xalaat faaw nga am njàqare faaw nga am tiis waaye bu ñu dellu si waatee ci li mu sëñ Tuubaa waxoon xaadimal Mustafaa moo waxoon ni képp koo xam ni man nga yaakaar mënu ma laa tee jàpp waaye na nga yaakaar doo ci dëgg loolu Sëriñ Tuubaa ko waxoon moo waxoon ni mënu ma leen a tee waaye li nga ragal dina ci dëgg Sëriñ Tuubaa ko waxoon kon yàlla dogal na loolu rek moo ko jàppoon ci bis bi bëgg a ñëw waaye nee na ñiy jàng xasida ku yoru tukki ak ku yëkkati ak bokk taalibe yi ak bokk dëkkandoo yi ak nit yi réew ñoo dajale seen mbir doomu ci dara ba teraa ngay mat sëkk ñu boole ko njàngum xasaay waaye ki ci jiitu nag ki ci jiitu te kenn werantewu ko te ku ne xam diggante moom mooy Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Soxna moom Serigne Soxna nee na na ne àdduna bépp xam na ñu ma moom di jaaxasoo ba jaaxasoo ak foog bu mu Sëriñ Tuuba ñor bu ko yoon ñor ak sopp bu mu sopp xaside yi ba na ñu bari ci mbooloo mi li ëpp ni ak xamante seen xamante diggante ma ñoom ñu ngi sosoo ci Sëriñ Amsatu moom Sëriñ Soxna kon nee ñu koy gërëm di ko ñaanal yàlla di ko sant. dama waa na lu bare bare loo xam mi ngi koy toppatoo mu jëm si ci bis bi bis bi da ko gàddul def ko muy bisu boppam loolu yaay xasida wax na ko neen ko ko jot ngir borom waaye dafa mel nit bu bu ngeen bokkee mbir dama am yow ak am ci yow yaakaar bi dafa su yu mel ko di ko yëkkati ci biir ñoo xam ne ñu ngi jàng yi waaye ndokk kon bi ñu xamee ni sëñ Tuubaa la ñuy dolloo jukkal xëy na kon loolu du jàmm waaye suñ waxoon jëm feneen rek ñu xaw ko ragal ngir xa ngir xasidu sëñ Tuubaa yi ñuy jàng ñu ci boole yëkkati suñu waaye nag Njaay xasida dafa mel ni dëkk bi lu wëlbatiku bu yàlla dimbali ci baax xam nañu bu bu ragal yàlla la. baatu ragal yàlla bu ragal yàlla daa rëy lool waaye màndal bi ñu sëñ Tuubaa joxe woon ne bu ngeen gis yàlla ngoon koo xam ne du def lu yàlla tere du def lu arab bu ngeen ko gis te muy jëfandikoo ndigali suñu borom te teg ko ci sunna Sëriñ Tuubaa nee na fu ngeen ko gis bu ragal yàlla ko xam nañ ne ab jaamukatu yàlla waaye nañ ko teg ci sunna yëpp nañu loolu arab it man xamal ma yëpp nañu yoonu ma rek lu mu bañ xamal ma mosuma ko séen ci mbedd moo xam ne yoonu murit bañ na ko ca jaar mosuma ko dégg ci barab boo xam ni yoonu murit bañ na ko fa ne fépp moo ko ci gataay boo xam ne yi wala soxla bi tey jar kon mandargam bu ragal yàlla loolu la sëñ Tuubaa joxe woon te ñun ñëpp seera na ko ci dugg yàlla dawal na itam ko wayaf la ku jub la ku la it nag ko am njëriñ njëriñ la nga njëriñ li mooy su ñaan dajee soo ko magee ak su la magee bala ngeen a ko da nga jëlee ci moom lu saxul dunduli boo demee da nga farlu ci jaamu yàlla ak topp seen sëriñ Saliou nag dama déggoon wax ne mbooloo bu dajee boo bëggee xam ka ca gën seetal ka ca gën a woyof te ëpp lu muy njëriñ nit ñi bëgg leen loolu salaatu al muslim man al yi ci ko kon yàlla dogal na njaay noonu la mel cant bu mu cant mbooloo mi rek mbooloo mi sant nañ ko cant bu ñu toog kon nag ko dalee Njaaréem dalee ko Touba Thiès Ndakaaru Ndar Louga Mbuur ak ñi ko wër foog jàngkatu nekk moo xam kuy yëkkati moo xam kuy duus wala ku boole ak yëkkati ak ñi nga xam ni nekk nañ ci biir dëkk bi doon ay taalibe di ko jàppale ci liggéey lu joxe café du joxe ndox du joxe aw ñam ñoom ñëpp yaay xasida gërëm na leen sant na leen cant boo xam ne nee na buñ ko waxee jëtu ko nag day bëgg bëgg nag pas-pas bi mooy ñu koy seeral sëñ Tuubaa nga xam ni moo ko boole jant bi kon rek moo doon am wax ji ci lu bàyyi ko ci yaay xasida demoon ci tel bi bi ci des moo ni noo doon ñu góorgóorlu ci xasaay ci sëñ Tuubaa bu baax Sering coba de moo waxoon ni sama xasida yi ku koy jàng faw sëriñ Tuubaa nee na faw nga dugg aljana loolu mbindum sëñ bi amul wax daanu kate amul leneen sëñ Tuubaa moo ko waxoon moo waxoon ni sama kasih yi ku koy jàng faw faw nga dugg aljana sëñ bi ko waxoon du waxi daanu fa du waxi dara te danaa ci indi ay màndarga yoo xam ak Serigne Saliou laa déggoon mu wax ko ni masaayitu Sëñ Tuubaa bu ne am picc la da koy jàng mooy laaf yi ña koy déglu ñooy dunqee te picc bi aljanna la dëkk te day ñibbi kon gànnaaw ñaareel ba Sëñ Tuubaa nee na sama xasida yi ngeen gis fii boo ëllëgee ba ñu tudd aljanna armuwaali aljanna ya sama xasida yii lañ cay fekk te nee na xasida koy jàng ci adduna bu aljana da jëpp ci sëriñ Tuubaa nee na yal na ko doon jàmm du dugg aljana bàyyi la kanam kitaabati dësëru taatal arsi bayna kiraami abidin sir basi loolu sëriñ bee ko wax lan bokkoon bootum xasida yi nag luñ la jox man ko mën ko lan bi ko ci suuf fekk si kenn ko mel ni moom te bu ñu ñëw xalaat na liggéey bi baax waaye nag ci xasida yi rek dana fekk sëñ Ba wax bul kul xarit baraxel xarit yaakaar na ni asanal xarit gouvernement sunu borom bi muy nguur gi ñu mën caa fale mën caa fal ni gouvernement boobu moo dajal ba ku jugóo ci man ma wàcc ci kaw suuf doon jël ñaan di gën a kawe ci kaw waaye nag ci yi fekk wul turaabi baaxil xadim jaamale mi asnal xadim moo waral sëñ Tuubaa muy ñëw ci kaw suuf fépp fu ku mel ni moom te bu muy ñëw li amul ngërëmal yàlla indaale woon gis nga waykat yi boo bu jiitu sëriñ daa dal fi sëriñ tudd na ko bu sëriñ boo fi tudd sëriñ bi tudd na ko daa sànna ngi fi sëriñ bi tudd na ko bu ñuy wax Abdul Waasi waykatu arab daw dégg bu ma nana wax mooy xëriñ waaye boo xoolee duubu sëñ bi li mu wax yow ki nga xamee ne yonent bi waajaloon na ko ngir mu nekkee doon xadimal Mustafa yonent bi waajaloon na ko bu dikkee wax du fekk waxam dana ko folli lu safoon lu saful woon xorom it wax lu safee xorom it bu dikkee dana ko folli dana gécceel kuraan bind dana gécceel kuraan wax dana gécceel kuraan jëf boo ko xoolee ci xasida sëñ bi waaj dañ koy gis sëriñ bi waaye ci benn xasida dafa wan màggal li xat yi wax di leen xiyaas man bi ya baaxaat dum la dal ak yaas màggal li xat yi muxtilal qiyaasi man bi ya baaxaa jumlatan ak qiyaasi ku mas di bind ku mas di wax ku mas di jëf ak ku mën a doon li ma jëlee ci sama borom mu jaarale ko ci yonent ma wàccaale ko gecceel na ko mas a bind wala ko mas a wax wala ko mas a jëf matali xar ci muxtilal qiyaasi man bi ya baaxaa jumlatan ak qiyaasi loolu sëñ bi dafa wax tey boo xoolee mbindum sëñ bi luñ la ci wax buñ la nee genn xasida nangam ne géej wala genn xasida xasida sëñ bi ay géej la genn xasida sëñ bi bu nekk nekk dañ na fàpp ak alaxira ko te defar gis nga ñooñu ko tuddoon nañ tam sëñ bi ñu jaxaatoon daa tax bun wa hasa wan bu soyru xat barabu wa kullu um fii moo loolu la asra kon ñooña seen tàgg ya amoon na njëriñ suñu borom nangu na ko yonante bi nangu te làq nañ ci ngërëmal yàlla waaye gis nga bu sëñ Tuubaa ñëwee bay tontu dafa wax ni waaw su kàppal waa sant léegi daal kàpp kàpp yonent bi da muy rëy rëy ba ñu mën caa jëlee gërëmal yàlla sama wenn bay étteen na kaa ba na sànna eh, bouché eh, am am am yu mu waas yi waykat bu xarañ naa la moo xam borom xam-xam yi di tudd waaye gis nga boo toppee xasida yi sëñ bi ne ne wa xustu mu dina ak yu nawas la muy mën a mën a wax la muy ñaw ñaw la muy mën a jege ci yoon yëpp ak lu mu mën a doon sama mbir loxo gerte la wante woon ko it gis nga Muxaddamatul Amda sëñ Tuubaa da cee signé contrat boo xam ne daal xasida yi yëpp a yam waaye rawaate mooy xasida boo xam ne dama ko xëy def ci ngoon ci suba bi lu yàlla xasida bi ma def ci ngoon noonu dañuy ëppalantee ndax sëñ Tuubaa day yittim ci xam ne bi ma koy def yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa ko mu dina ñëw fekk si xasida ko booba ak muy tukki ak ku mën a doon Sëriñ Tuubaa ne boo jëlee xasida ga ñoo ngi ci bàyyi ko Madina ak samba mi toog ba kenn rek day àbbatu mu mel ni Muxadimatul Amda nangoo naa ci Sëriñ Sall Muxadimatul Amda nangoo naa ci Sëriñ Sall mooy bi ko Sëriñ Tuubaa di liggéey yonent bi daa bàyyi ko Madina tuuti ma war ak amalu ba tuuti donc tey boo xam ni sëriñ bi bind na ko ba noppi nee na ci loxo yonent bi la koy teg yonent bi xoolal ko boppam mu jëlaat bind bind ko jox ko yonent bi wax muqaddimaat am daal mag mi ak sëriñ bi wax nañu ne yoon sëriñ bi nee na képp koo xam ubbi nga xasida gi di ko jàng rasulullah teew nam nam teewoon te ba ma koy taalif moo xam ko loolu sëriñ bi ko wax mën na nga ko ci sëriñ Sall bi te yu basiru kat baax yi di xaar ci kalaamatam waaye ñu gën a ak alima dina ci sàmm ba demee ca soo ko defee nag kon lu góorgóorlu ci xaside yi xoolal ma fàtteel bise Serigne Touba nee na ma fàtteel soo ko xëyee jàng mel na ni liir boo xam ni daa ñëw tëndiwaale wilaaya doon doon ordonnance liir daa gën a jamono te bu ñuy ñëw daa tëndiwaale wilaaya doon jàpp doon ordonnance doon jamono na bu jàpp ma fàtteel bise Serigne Touba it moo waxoon ne waxul di jàng waaye ku jàng ma fàttali gis nga boo dajeel mu dox la nag suñu borom jéggal na ko boo ci sa bopp suñu borom jéggal na ko ma wax nga sëñ Tuubaa la loolu mënees na koo dégg ci benn nit mooy nangoon naa ci Serigne Saliou mu wax na Serigne Touba bi mu jógee Gànnaar ba ñëw Thièyeen jógee Thièyeen ñëw Njaareen maanaam bu fekkoon fukki at te sëriñ bi ndax sa sin la ñoom ñaar yi wa sa sin day dem diggante bi lu gàtt la te sëriñ Saali bi naan bu ni fukki at la juróomi at yi sëñ Tuubaa ko bu yàlla ji ndax nee na amatul dafa wax kenn ku yàlla ak yéen loolu ci sëriñ bi laa ko nangoo mu wax la ñu nañ ba ci guddug sëriñ bi yi ak bëccëg yi dañuy dégg ay ay ay ay yi daal mel ni ay ak ba mag na nit ñi ne am na lu ñu jaaxal a gi nga xam ne guddi ak bëccëg maanaam ñi ngi daal ci sëñ ay nañu ngi yëngu kenn duñu gis ku yow sëñ doo dox ci genn kees ba daje kenn koo xam ne luy liggéey loolu day doon am nañ ci jaaxle xamuñu lu mu wa Sëriñ Saliou nee na ma booba fekk na xasida yi sëñ Tuubaa di dund xalima gu ñuul xalima gu xonq xalima gu wert bu àggee ci wala bind bu ñuul jël xalima gu ñuul bu àggee ci taw. jël xalima bu xonq bi ñaari xalima yooyu ak yu wett yi ni ñu dajalantee doole ji moo àgg foo toll ci biir njaaram di ko yëg loolu sëriñ Sadio ma ko wax kon xasida sëriñ Tuubaa buñ la ci waxee mel ni day mel ni ni adduna bépp adduna bépp ñu jël benn somp suuf ne na lii suuf la li des lépp di suuf ci genn xasit ak sëñ Tuubaa te boo xoolee mbindum sëñ bi lañ ci wax ni wëccëg kitaabati ka kullu mursali yaa wa abdu ni wujju pujjoo ak mursali xasitaam lan ca xam ngay wax waaye bii lan ca sa ca xam ba daana kon nag ñu góorgóorlu ci xasida yu baax te di ko jàng te di ko sell sëñ bi nee nag sama xasida yi ko koy jàng faw faw nga dem àjjana nee na kenn dong nga mënoon a cee nga dem mooy borom subhanahu wa taala mag yàlla ko toobal ci yàlla war nga góorgóorlu wax ci jàng xasida yi te bañ ko sàggan ne maanaam Sénégal moo gën a tuuti ci ñëw yi moo ci gën a ñàkk ay matériel moo ci gën a ñàkk jumtuwaay waaye adduna lépp lépp lekk nañu lekk nañu Sénégal te dara warul ko lu ñu yaanu bi xaalimal Moustapha bi fi nekk ak xasida Sëñ Tuubaa yi fii Sëñ Tuubaa nee na sama xasida yii waxuma la Sénégal gi ma ko defee waxuma la biir yi ma ko defee waaye adduna bépp xasida yi am te boo xoolee ci xasida yi matu rasulullahi saaral yi salaat nitu bi xayra salaat yi faraat ngeen demee ci téere yi da ngeen ko ci gis moo Sëriñ Tuuba du jóge jur ci liggéeyam bi kenn du sumu yor gaas kenn du sumu yor paaka kenn du sumu yor ngànnaay matu rasulullahi saaral yi salaat la waxoon mooy sama ngànnaay mooy sama gaas mooy sama paaka mooy sama fetal bi ma demee ci ñi ma àndaloon itam liggéey naa liggéey bi ñëw am nañu gàcce ma am la xasida ya ma ko may waaw kon góorgóorlu bu baax ci te bu baax mën a toll loolu bokk na ci li nga xam ni dañ waxtaan rek dina mën a am dina mën a xam ma waaye bu mën a ma waaye bu naaf yi sëñ Tuubaa dawi ne Faatiha kitaab leen ci ci jublukaay yi lépp loo ko bëgg am ngërëmal yàlla ca loola jublukaay yi gum loo ko bëgg bu taw jàpp jàpp ne jafe na sëriñ Tuubaa nee na ma waaye bu mel na noonu ci biir xasida yi kon lu la jafe sëñ bi digle na jàngal ma waaye bunt boo bëgg a fëgg ma waaye bu dana ko ubbi te ma waaye bu lu mu xas ubbi ne la dootu tëj waaw lu góorgóorlu bu baax ci xasida yi xool fi jannatin lati wu'ida al-muttaqun nga dem ci xasida yi wax ay su ko ci ba aw ko leer aw aw ko ci ba aw lu ci ni ilaa abadan am jaabal xale ba tey ci ma wax ko la ko wax su ko defee kon nag gannaaw alquran gannaaw alquran Serigne Touba nee na lu mel ni sama xasida yi amul gannaaw alquran alquran nag dafa am lu tax lu war ko dégg Serigne bi mu bind ci xasidaam yi bu ko jàng gis ko. wax ne lu dul alquran ak hadis suñu borom nee na sama mbindum loxo ko bëgg na lu dul alquran ak hadis waaye boo seetee ni boo xamul baatinu la taxoon wax koy sëriñ bi ni meloon ci alquran da nga xam ne kon si kitaab wal hadisu wal adab laa jàmm fi natal wala jàmm saa kitaabu rabbi xanaa anisi min baadi xamdil mustafa raisi karaamati wa mafxari wa jaahi kitaabu rabbihi wa rasulullah kon alxuraan noonu la mel ci moom ba tax na kon alxuraan mu jiitu sunna topp ca kasaay ci sëñ bi topp ca te sëñ bi demaan na ba ca kanam mu wax ni sunu borom nee na mu ñu gëtu muy lu tuuti gis nga mi nan àq nangoo ci sëñ Saliou Lo Mor Serigne Modou Dóor yi ci njaareem ñoo wax benn baay Serigne Mor Absa Lo mooy seen baay bi ma nekkee njaareem yàlla daa dogal ma daal faratal ñu ñëw ci moom mu ne ma am na benn xasida boo xam ni gis texe da ko Serigne Touba tudde woon muy minal àq ni ma fii ci njaareem dooro sooro bii nga xam ni mooy fi jëkk ba ci mujj parti bu gudd lañ fi lañ gasoon daa daa daa xasida ba ca kaw ngir fu waay mën a jógee boo man koo gis soo jógee euh, euh, euh, soow jant te jëm tubaay wala nga jëm daara man koo gis ndax borom ma waxoon ni sama borom nee na xasida gi ku ci tëb ba dootu la topp te la bokk te sëñ bi nee na doom ju ak ma yaral sama bopp dem ci def lu naqar yàlla moom duñ ko wax duñ ko jëf sëñ Saliou Lo ma wax ci moom laa ko nangu waaw su defee nag kon lu góorgóorlu baax ci fonk xasida yi te ko jàng ni ko borom bëggee su ko defee rek lépp dana baax li ci des mooy nu farlu nu farlu ci mbooloo bi nu farlu ci ànd bi nu farlu ci bëggante bi nu farlu ci soppante bi nu farlu ci ko defee lu jafe woon dana yomb li ci des mooy nu waajal magal magal bi tey gisu rek laay wax ni am na benn waajkat boo xam ni daan mel ni yóbbu te waajal ni moom damaa masa nangoo ci Serigne Saliou mu ne bis bi ñuy màggal bis ba ñuy yeewi nit ñuy delluwaat ci seen i kër ci laay tàmbalee fas yéene waat ak bisu kuréel bii ñëw kooku rek a mën waat ba tax fi mu ne lu waay wax moom dana mel ni xam nañu ko dégg waat nee na bi ñuy yeewi nit ñu dellu seen i kër waaye jóge woon ñibbi bis boobu ci laay waajal màggal bi ñëw jëlee kon nu bàyyi ko xel te xam ni noonu rek la demee nangoo naa ci moom it mu ni lu ne teraanga dana ci ëpp ba fee ak ko ku ci lii may wax kon màggal gi dañuy màggal ci ñu waaye joxagul ko àqam mooy fee màggal gi jàllul xéewal yi ak ak lu ñu mën a jariñoo ak teraanga yi desul ay mbeddi Touba yi ba mu mel ni baykat bu bay gerte te gerte nga nangu nan laa fiy mel ca biir tool ba ni weree ba foo toll di ko seen su magal gi jàllee te Touba melul noonu ci aw ñam Serigne Saliou nee na ñu àggagul ci àpp magal loolu nangoo naa ko ci Serigne bi nangoo naa ci sama benn magu daara bu ma tudd tuuti Serigne bi ma war na maa moom ñu waxtaane ñu magal mu ci dugal ko magal mu ne ko mu ne tekk ba daal mu ne ko boobu baat na mu mu naaw tuuti jëm daal baat baat boobu ñu ko waxee tey jii ñu ko dundal ci sax day bu ñu toll ci waxtaan bi ci magal wax ne ko soon na yàlla moo mel ne daaw moom mi nga xam ne wàcce na ay xéwal mu mu mu ñoo def ci xéwal yi mu yàlla jox lu ëpp ci magalu Tuuba donte bu ñëwee ñu dajale li ci ëdduli bi wàcce ko yi du tee màggal bi du dootoo mën a àqil loo xam ne nag mënoo mënoo koo jaral boo amee lu ci lu ci def ñu ko ci nattal da nga wax ne mag na doy na wala doyu na mujj tey moo ko yëkkati kon nag ñu waajal màggal bi te nih ko waxoon naa ko ca ca ca ca ca korite ga ca tëbës bi sëñ Tuubaa nee na mooy bu fukk dënnam ni sama yaakaar wér na nee na bàyyi xam ne bis boobu ma ko fukk fan ak juróom ci weeru sabar sëriñ bi it nee na li tax bu ëllëgee ma mën a taxaw ci kanamu taalibe yi kenn ku nekk ma santante yow jox la sa këru aljana nee na ci bis boobu laa baax ñu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sabar sëriñ Tuba nee na bisu màggal boobu ci laa taxawee ci kanamu góor yàlla yëpp te yàlla akub yonentam dootul nangu bu ma fee ca kanam te ci bisu màggal boobu laa baax sëriñ Tuba nee na màggal gi ci laa joxoon ak sama borom moo ko nee waaw mu ne waaw su ma ko nee ngeen magal gi sëñ Tuubaa nee na ci laa amee dara ñu du àgg sama borom nee na fi rek at nay dox dootuma jëriñ kenn man yàlla te du suuf ak yow nga xam ndax sa dund la wala du sa dund sëriñ Tuubaa ko wax sëriñ am satu ñu mu nekkee njëkk Tuubaa nga xam ni sëriñ Saliou nee na moom ak sëriñ Abdoulaye ak sëriñ Sooy sëriñ am satu la leen sëriñ bi bàyyi na ci Tuubaa sëriñ am satu moom mu am benn bis da booba sax dégg naa ñu ni sëriñ Sooy sëriñ Sooy mu daal dafa jàppoon ni benn sëriñ a am ci kaw suuf mooy sëriñ am satu ndax li yang satu sat nit ñaroon benn sëriñ moo am ci kaw suuf te muy sëriñ am sëriñ sooy bu nee benn bis mu ne waat nañu dem jaareem sëriñ àggee mu gis yoroon moo fas ko ci gannaaw ñu rek waaye fan waaye fan boppam ak xam ki ñu jóg can nee wax ci xelam ne ak fas ko ci waaw dañ ci waa kaam mu daal di koy fas nee bi ñu nii rek sëñ bi ngeen egsi mbaar sëñ bi ne dañ koo mel ni ne ca sëñ am sa di raam sëñ am sa ti nee na raam gi jaaxal ma may ma moom di def nii ba mu ñëwee ba yàlla dogal ñu egsi ci sëriñ bi mu nuyu sëriñ bi ci mbaar nee muy dellu di maasala ay tàggat ak fi mu jaaroon ba satu to di ci sëñ bi jëmaa sali dellu ginnaaw jëmaa di dalam ginnaaw ba sëñ sëñ ma ne ah waaw kay yaakaar naa ki tax gaañu nit ñi ndekete muy sëñ kon yow li may ñett bi ci am sattu laa ko jël lañ lañ ko jëlee di sini nah. ni sëñ am sattu nangam nangam waxaa nag mu mu mel ni mu mel ni mu xadimatul am daal dina xam ni sëñ bi daani sëriñ am satu daa am màggal bu yes bu am njëriñ bu bëri aw yiw te yorul benn lor danaa la ko bu ko mu ko sëriñ am satu ne ko dimbali ñu ci ndax ñu mën ko bàyyi nga bàyyi ko mu ñu ko am satu xamal naa ne su la ko wanee def su la ko wanee nga wax sëriñ am satu toog toog sëriñ mu ko waaw ci ni ñu ko bëggee te ci ci waxoon ñu génne ko laajale suñu bàyyi loolu ci jamonoy baram suñu sant ba la ko sëñ Saliou toog di ko digle bëgg ñu fonk mu xadumaan amaa ba ñu julli timis sëñ Amsatu ñëw sëriñ bi yónnee ci bi mu ci yónnee sëriñ ne ko sëñ Amsatu ñëw mu ne ko Amsatu booba nekk yow laay jëm lu tax ñëwoon mu ne ko maa ngi dul bëgg ñëw mu ne ko bisimilah fukki gudd laa juróom benn sëñ am sàkk mokkal fukki bucc mu des juróom-benn bi mu àggee ci juróom-benneen bi am sa takk sëñ ne takk ne takk ne takk ba yàgg ma ko yow lay gëm mu ne ko ni ma ko doon ci sa barke de foofu la yem ni ma ko doon ci sa barke foofu la yem sëñ bi ne takk ba yàgg ma ne ko kon nag lañ Serigne Touba it moo wax ne muqaddimatul am daa waxul xasida yeneen yi waaye Serigne Touba nee na muqaddimatul am daa xamul moom bu ëllëgee kuy roy yor raaye nga xam ne moom la ñuy wax ni moo tax yonent bi ba jur gi ñëpp war koo yor mu ne loolu mën na ko bañ a tudd waaye kuñ ko mën a teg ci sa loxo benn bayit ci muqaddimatul am daa suñ ko yëkkatee dana ko tëral ci suuf te kenn du ko tëral kon kon madali xatti muxtaleer xiyaas yi man bi yàlla xatul la dama xiyaas kon ñu góorgóorlu ci sëñ bi ñëw na doon jëmm mel ci lu kenn lu mus fa ay jumtuwaay yoo xam ne yow koy jàng waxuma ko waaye yow mi koy jàng ko bëgg mu defar mu defar kon nag nga foog xasida yi baax di ko jàng di ko sellal jàppante soppante wóolante bëggante te yéenante lu baax yaakaar ne la sant nañ la bu baax ma fàttaliku nag nii bi ñuy bi ñuy nabbi ci maa ci ciy jàngate loo xam ne war nañ ko xool da ko bàyyi xel mooy mbooloo da nga ca dem yëpp fa lu yéeme lu xar baaxe waaye xëy na dajab mbooloo ko tax gisuñu ku doon nodd timis waaye baat bu moonu wane ne wane la waaye loolu lu rëy ci lislaam la ci jamono ji ñu toll kenn te rekk na amul kër xalifa mu soxla noddinu xale bi ma dégg kër sëñ Tuubaa rek laa nodd na xale bi ma dégg ci biir kër ci biir kër yu mag yi la bokk wala nodd xale bi ma dégg ku yaw biir kër yu mag yee toqi xale bi ko jàppal ah. waaw waaw waaw kon ma ngoog sëñ euh, sëñ doom bi papa caab la sëñ Abdoulaye mu sëñ Abdou Xaadir ko yàq kon nangu rek lu tumuranke ngoo xam ni mën sa jàngal lu wéy loola nag dafa mel ni fay boor la yaa ayyuha sibyan laa tastaxilu yaa ayyuha sibyan laa tastaxilu anil hudaa kon dana mel ni ku fabu ba dox ca loola mu amal la njariñ ku fagul doxoo jëm ca loola it waxi sëñ Tuubaa du naax saay faaw ñu des ko fi baax kon ca mooy fexe ba bu ñuy doxee mandarga yi mën la caa boole kon ñu góorgóorlu yaa ayyuhaa sibyaan laa tastaxiluu anil hudaa anil hudaa moo ñu wóor la saxiloo xam-xam lu wiis la lu am solo la lenn mel ni moom maa ngi mas a dem ci daara yi booba daa nga xale bu sëñ bi yëngu woon euh, Tuubaa muy jàng jaas jax mu jege fekk fa sëñ bi ne ko dama dama doon xa téere xam-xam mu am téere yu ko tudd ba boole waale ci maqam sëñ bi ne ko kon yàgg nga foofu mu ko waaw mu ne ko kon dinaa la ko toppatoon yi fi am su fekkente ni yëpp am na ma dox ko su fekkee yëpp am fi itam su ma ñëwee tubaab dinaa la ko toppatoo ba ma jox waaye ginnaaw egsi na fii ci ngaan maa ngi lay diw bi nag na sëñ Tuubaa daan diw ñamu daan yàq te jaarale leen ci lu ma leen jaarale lu xam-xam bu bari ak lu mu mën a doon pour fàtte yàq loolu la ko sëñ bi dégg li ma sëñ Tuubaa dafa daan diir ko aw nitam kon ginnaaw doon suñu fii ci njàng maa ngi lay dégg la sëñ Tuubaa dénkaane woon boo fàtte yar bi ak teggin loolu kon man cee jàng ni mu rek bu mag bi ak bu ndaw ñooyam yar ak teggin di ko yàlla wàccee ci kaw suuf daanañ ko ni duñ kër sëñ Tuubaa nag fexe ba pour seen xam ni boromam yar lañ boromam teggin lañ yar ak teggin nag bu ko nit yoree ak foo mën a bàyyi ko ci réew mi ci xel dem ci sëñ kon maa ngi koy dégg sama bopp mooy yaa yaa si jaamu laa te sax lu amee lu tax kon loolu nañ ko bàyyi xel jàppale ñu dajaloo tàqatu di ko tuddal jël delloo ñu ko Sëriñ Tuuba mën naa tudd ñëpp waaye tudd na ñëpp yaa yaa si jaamu laa te sax lu